tey ñu dalal Pape Amadou Mbodj moo di initiateur de la calebasse de l'excellence luñ fi fas yéene waxtaanee rek mooy comment faire pour sortir euh, du chômage maanaam naka la ndaw mi war a def ba euh, génn ci chômage mooy ki nga xam ni dafa jàng ba am ay diplôme te amut liggéey naka lay def ban yoon la war a def ba mën a entreprendre daal ci euh, génn Euh, waaye dinañu dikk itam ci calebasse de l'excellence solos bi euh, daal di ñëw ci seeni euh, projet waaye laata ñuy dalal gan bi Mor Fall day daal di ñëw rek ci li nga xam ne moo di actualité du jour Mor Fall nga ñëw rek ci actualité du jour balaa ñuy dalal suñu gan yi waaw voilà donc maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal képp koo xamante yaa ngi teewlu jamono ji euh, réew mi FM réew mi point com donc di jaajëfal suñu invité bi nga xamante lañ fii dalal tey ñu waxtaan yu am solo euh, donc euh, di jaajëfal képp koo xamante yaa ngi taamu heure bi di set déglu ak di seetaan li nga xamante ne moom mooy émission Espace fii ci réew mi FM. Mm-hmm. nga ñëw rek actu balaa waaw voilà donc actualité bi may andi tey dañ koy accentuer rek euh, euh, ci ki nga xamante ni moom moo génn àdduna di Hissène abre donc euh, laataa ñoo kii rek ñu koy masawu waa askanam ñi nga xamante ni ñoo nekk Tchad donc di lañ ko jaale donc mu am benn coow bu ndaw bu tuuti bu ci am ci li nga xamante ni moom mooy génnum àddunaam parce que dafa nekkoon fi nga xamante ni moom mooy prison donc ñu tëjoon ko fa ci jamono yee donc li nga xamante ni mu nekkoon ci Covid bi soxnaam sàkk woon ci li nga xamante ni moom mooy waa Sénégal pour ñu libérer ko parce que dañ doon bañ mu contaminé ci li nga xam mooy coronavirus bi que dañ doon ragal euh, ci première vague bi deuxième vague bi yëpp ñaan nañ ñu daal di koy génne mais boobu boobu léegi euh, lu euh, mm-hmm. donc à bi ñu ne Habré a été contaminé au coronavirus. Mm-hmm. donc ñi li ñu mooy fan la contaminé li nga xamante ne mooy coronavirus bi. Mm-hmm. donc si liñ di Habré def na 11 jours fi nga xamante ne moom mooy si benn clinique bu nekk Dakar fii. laataa ñu koy yóbbu fi nga xamante ni mooy hôpital principal fi nga xamante ni la fa gaañoo donc jëlewul covid bi fi nga xamante ni moom mooy ci biir prison bi bañ na ko sax ba mu gaañoo si ëllëg sa euh, waa ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa pénitentiaire ñu yor administration pénitentiaire génn nañ benn communiqué ne amul benn nit koo xamante ne fi mu nekk ni ci biir euh, prison yi am na coronavirus mhm. ngir leeral loolu si ëllëg sa nee nañ def nañ test ñëpp koo xamante euh, gardien nga foofu ci biir ñëpp ils étaient négatifs mm-hmm. donc pour leeral ne ki nga xamante ni moom mooy Habré ameewul li nga xamante ni mooy euh, Covid bi si biir prison bi mais clinique bi nga xamante ni fa lañ ko yóbboon fa la contaminé coronavirus te aussi moom dafa nekk koo xamante ni dafa am diabète am mm-hmm. hypertension am yeneen feebar yoo xamante ni donc dafa ko doon sooxaale mm-hmm. képp koo xamante ni am nga yenn feebar yi pour nga mucc si day xaw day xaw a metti donc mu nekk loo xamante ni lu doy waar la parce que nit ki bu ñu yóbbee ci clinique pour nga am fa confort moo tax mais bu demee ba clinique nit ki di fa jëlee feebar. jàllal ca beneen moo donc bi ñu daal waaw ci juste waaw juste pour leeral foofu rek. tënkal nga jàll ca feneen leneen li moom mooy euh, coow li nga xamante ne moo amoon keroog euh, fi nga xamante ne moom mooy Kër Massar euh, ki nga xamante ne mooy Antoine Diome waroon dem seeti ji askan wi nekk ci biir mbënd mi. Mhm. mais fi nga xamante ne fa la woon jaar parce que dafa woon def état bi bëri jaas nit ñu bëri ngir seeti leen mais li frustré mooy ñi nga xamante ne ñoo dëkk jàmm gën jaak saaw li leen doon romb ñoom nag ñu ne du fi romb te il faut mu toog ñëw wax wax ak ñoom lu leer ci li nga xam mooy inondation yi ci loolu nag euh, moo taxoon ñu daal di euh, assiéger li nga xamante ne moom mooy autoroute euh, mhm. route nationale bi donc nekk yi tàkk foofu ñu mu nekk loo xamante ko ko mhm. daal ñi koy ñi koy ñi ñi nga xamante ni ñooy Kër Massar mais même lieu bi nga xamante ni fa la daaw a xuus fa ren xuus fa ren bu nee ne bu déwénee keneen mhm. dara xiis mhm. nga xamante ni mooy inondation yi def nañ ci sept cent cinquante six milliards waaw mu nekkoon ñaari info yi nga xamante moom la ñu andi woon tey jaajëf Pape Amadou Mbodj ñu ngi lay nuyu bàyyi nga nuyoo nga nuyoon mbokk déglukat yi laata ngay joxe sa ab yi ci ñaari ponk yu mu faal développé salaamaaleykum maa ngi am maa ngi am mbégte loolu maa ngi am mbégte tey ñëw fii tey. Mhm. Euh, di la remercier. Mhm. di remercier di wane ne tey jii jeunesse bi am na ndam. Mhm. parce que on voit tey jii jeunesse baa ngi liggéey. Euh, di féliciter euh, groupe Rewmi. franchement parlant. et que aussi di di di nuyu di nuyu tous les auditeurs. de Rewmi FM. merci beaucoup ci invite. invitation bi. Mhm. di di di masawu ci Sénégal li fi xew. temps mhm. yi euh, métti na lool ñëw ci mbënd bi. métti mhm. na lool. Euh, di wax rek quand on a dépensé sept cent cinquante milliards ci li nga xamante ne mooy dox te amul résultat yoon ñu qu'on fasse benn ñu xool xaalis boobu fan la dugg. loolu mooy li li si njëkk. et que aussi euh, l'autre l'autre avis que bu xamante ni tey jii naa ko wax. mooy bu fekkee ne l'ancien président. bu fekkee ni ci corona la am. Mhm. génn je pense que on pouvait éviter ça. Mhm. on pouvait éviter cette mort. Mhm. man loolu la gëm et di wax ne euh, lu war a am nag su amee kenn mun ci kenn. kenn yàlla la waaw ndogal yàlla la. Mhm. encore une fois merci beaucoup ci invitation bi. d' accord ñoo la gën a kontaan ci euh, sa teewaay fii ci euh, plateau sans filtre yow yaay initiateur du la calebasse de l' lan mooy calebasse de l' excellence. waaw calebasse de l' excellence cérémonie remise de prix la. Mhm. boo xamante ne day jox ay. prix à des personnalités mhm. yi nga xamante ni tey jii ñëw dina ràññeeku ci at bi mhm. ay personnalités yoo xamante ni dañoo liggéey mhm. ay personnalités yoo xamante ne def nañ fi loo xamante ne euh, war nañ leen sant war nañ leen euh, ñu ñu ñu ubbi benn entreprise depuis presque quatorze ans euh, organisé bu tudd spécial event Sénégal moo xamante ne moo porté la cérémonie des Calabasas de l'Excellence Awards nga xamante moo moom aussi on fait des événements thématiques mm-hmm. moo porté les trophées verts mais li li ëpp doole mooy la calebasse de l'excellence te ñi nga xamante ne dem na fépp ci àdduna États-Unis euh, ñu am fa benn décoration boo xamante ne état Memphis moo ñu ko jox mm-hmm. euh, yaakaar naa ni ñu loolu yàlla dimbali nañu ñu ñoo ko njëkk a def la ñu jóge foofu dem euh, signer partenariat avec le regroupement général des Sénégalais du Canada mm-hmm. ñu ñu liggéey au niveau de Montréal organiser fa la calebasse de l' excellence. Mhm. Euh, ceeg Baba Mal ceeg ay personnalités yoo xamante ne c' est des c' est des c' est des mhm. ah, euh, ak benn groupe boo xamante bu responsable. organiser fa la calebasse de l'excellence fii nag mhm. euh, def nañ ko fépp def nañ ko hôtel def nañ ko Sorano def nañ ko hôtel Soo xamoon def nañ ko King Fat yóbbu nañ ko ci Pikine dans banlieue bi. banlieue. Mhm. on a essayé d'exporter euh, King Fahd andi ko Pikine. Mhm. Euh, France bi ñu jógee foofu euh, fi ñu ñëwaat mooy hôtel Pullman. Mhm. def fa la cérémonie des de l'excellence. organiser ñu sax calebasse ci stade Alassane Djigo. ci benn festival. franchement parlant pour dire que euh, on est proche de la population. yàgg na. waaye. ban année la woon. c'était presque 2000 2009. 2009 2009 2008 nañ bind le projet di ci dox di ci dox ba 2011. 2011 nañ njëkk def suñu cérémonie remise de prix. Mm-hmm. le thème ça c'était sur l'agriculture. Mm-hmm. d'accord euh, bu ma la déggee bu baax Calebasse li ko tax a jug moo di euh, euh, primer les des personnalités lu tax personnalité kete. non am nga personnalité ak ñi nekk ci société civile parce que suñ demee c'était la pouponnière de Mbour. jox na leen prix euh, suñ demee seet yi par exemple Soufi Gueye war ko xam euh, mi ngi ci social ak yeneen ak yeneen ñoo xamante ne ji euh, ñu ngi liggéey ci wàllum social. Mhm. suñ demee tey ji ba jox prix ki nga xamante ne mooy Amadou Amadou Yaakaar Diouf. Mhm. kooku tamit bokk na ci. Euh, ñi nga xamante tey jii ñi ngi si société civile. Mhm. ñoo xamante tey jii euh, ñun xooluñu ko am ak ñàkk. Mhm. ki am solo mooy ki ki ki nga xamante la muy def le mérite mooy moom moom la ñuy li muy def pour la société. tey jii monsieur Fall mi ngi dem ba. Euh, di di ci daw di ci mhm. sonn pour rek indi benn information yaakaar naa ne yoon la ñu sargal monsieur Fall. loolu mooy le but. mais bu ma xoolee bu baax euh, gëstu naa tuuti ñi ngeen di primer le plus euh, c' est des personnalités mais ñoo c' de de grandes personnes pourquoi pas jeunesse bi. waaw mais jeunesse bi ren su fekkee da xool sax euh, yaa yaa. jeune talent yi soog a jóg jeune entrepreneur yi soog a jóg. mais bon même soo xam nga xam nga calebasse de l' excellence c' est plusieurs c' est plusieurs c' plusieurs personnalités. quand on dit personnalité kenn ku nekk jeune rek personnalité nga. ku xamante yaa ngi ubbi sa entreprise di liggéey mais personne personnalité nga euh, imaginez ren euh, yaa yaa yaa yaa Sophie Gueye xam ne xale bu ndaw la. Mhm. liggéey liggéey bu am solo. ci social lay def ci social. Mhm. mais dañ ko woo mu ñëw. Mhm. El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. nga xamante ne jii moom tamit mu ngi liggéey ci social lu bëri dañ ko woo. mu ñëw ki nga xamante ne jii mooy Thierno Thierno Niang mu ngi ba Belgique sur le plan kenn mënul def culture. culture mënoo ko def te demoo siècle te demoo Belgique. Mhm. soo demee Belgique il est incontournable ci Benelux bi. Mhm. moom dafa jógee Belgique ñëw. Mhm. ñooñu nag c'est des personnalités maintenant. am na ñoo xamante ne tey jii euh, comme le professeur Seydi euh, le 29 mai ñëw na bu ñu jox ko prix le professeur di euh, Bousso. le professeur Souleymane Man Mboup on a même décroché le professeur Didier Raoul. andi ki ko représenté c'était euh, monsieur Cheikh Sokhna. Mhm. professeur Cheikh Sokhna. pour mu mhm. ñëw c'est-à-dire que bàyyi ñu benn bàyyi ñu benn benn kii. ñëpp mhm. nañu woo. Euh, calebasse la leket la. Euh, ñëpp ci mun a xaj. ñëpp a ngi ci biir ñëpp ngi ci biir. journaliste yi ne wuñu fa. bien sûr Astou mi ngi foon. Mm. Astou mi ngi foon. Euh, y' a Pape Alé Niang bokk na si ñu ñu primé. y' a Bijou il y a Néné Aïcha Ba mm-hmm. il y a il ñoo xamante tey jii bokk nañu ci ñuy il y a il y avait Babacar Fall mm-hmm. Babacar Fall buy def RFM matin matin ba euh, franchement on a vraiment fait quelque chose maintenant nag euh, am na événement boo xamante ne c'est les reporters ñoo koy def mm-hmm. bëgg ñu bëgg ñu dugg bu baax ci seen liggéey mais calebasse de l'excellence c'est les awards c'est les personnalités de l'année et c'est les euh, c'est les prix autour du thème. Mm. d' ma faal balaa ma lay jox kàddu gi may ma rek tey base de l' excellence mu ngi fi. <coughs> corridor organisé par le MEDES mi ngi fi ñu bëri jàpp ni c' est des concurrents nga leeral foofu. mais ma ñu sama papa la ma ñu ma ñu sama papa sama papa la c' est dire que euh, jamais au plus grand jamais du ma concurrencer ak Mbagnick Diop. Mm-hmm. ak sama papa Mbagnick. Mm-hmm. pour rien au monde. et pour vous vrai cest dire que euh, yàlla xam na ne euh, ñu koy wax bëri na ñuy topp naan euh, calebasse parce que bii passé dañoo dañoo primé woon le professeur Seydi le vingt neuf mm-hmm. après moom mu ñëw primé professeur Seydi gars yi di gis ay dualité. Mm-hmm. di naan non est-ce que topp ndaw la di man leen li am bu am solo mooy. Mm-hmm. ñun dañuy am mbégte parce que moom moo ñu won yoon wi. dëgg la ñun nag loolu suñ ko amee. cest à que Mbagnick suñu papa Mbagnick. Mhm. c' est c' est c' est euh, moom moo fi ne. Mhm. nañ topp ci ginnaawam that's it man loolu laa gëm mhm. ba ba sax man dama dem ren ba dama ci sonn ci pression boobu yàlla xam ne ne moo tax événement bi may def année prochaine moom laa bëgg a jël mu doon sama président d'honneur événement ah loolu fort na pour wane leen <laughs> macha allah ne ne ñun du ñu ay dualité du amul sama diggante man ak sama papa dëgg la franchement parlant te te loo xamante ne man man loolu laa gëm. rafet na rafet na vraiment donc leer na ci ba kanamu askan wi Mor Fall balaa ñuy dem rek ci yeneen. question voilà donc calebasse d'or donc ngeen di primer ay. calebasse de l'excellence waaw kon boobu de l'excellence seen donc man li ma bëggoon xam mooy les critères yi nga moom ngeen di jëlee ngeen di tànn pour jox leen calebasse boobu parce que buñ ne jël nga ay bijoux jël nga ay. ay ay Pape Alé Niang mhm. ñëpp xam ne ñooñu dañoo fës mhm. te am na ñenn ñoo xamante ne peut-être ñooñu ce sont des personnes méritant yoo xamante ne reporter bi ci terrain bi ah, ah koo xamante ne reporter mi ci terrain bi am na technicien ñi ngi ci te ñi ngi ci kii bi def def lu metti ñoom ñooy liggéey ñoom ñooy nelaw ñoom ñooy nelaw ñoom ñooy topp mbir yi am na ñu bëri ñoo xam ñoo xamante ne ay ay sportif lañ mhm. ay ay personnalité yoo xam ne def nañ dara ci réew mi mais critère lan la ndax critères yi euh, daa daa daa am fu fu muy jaar wala boog dafa am kuréel goo xam ne ñoom ñooy toog ne diw la jël ñu def vote wala boog ñu waxtaan si ne kii la ñu war a mën a jël critère la mën a xam parce que il faut nit ñi xam lan mooy critères yi mhm. parce que ñu bëri jàpp ne mbiru mbiru mbiru faralante lay nekk saa waay jëlama sama kii nga defal ma ko mhm. euh, pour ñu comprendre moi ça fait presque quatorze ans ngi ci ñu ngi ci cérémonie remise de prix mhm. calebasse de l'élection awards yàlla suturaal na bi que bi ñu koy def amuñu kenn ku ma sa ne ah li nga jox Sylvie kat nekkul moom moom franchement euh, li ci wóor mooy calebasse de l'Elections Awards ñun dañoo nekk ci trois événements en un seul mooy li pris autour du thème xam ne dañuy jël benn thème. Mm-hmm. am na benn boo xamante ni c'est les personnalités pers personnalité yaay personnal euh, personnalité morale. Mm-hmm. et physique. Mm-hmm. mu am les citoyens tout autre yëpp ñëpp ñu ngi ci biir. la fin mooy les awards. léegi nag li ci nekk mooy. li ci nekk mooy c'est-à-dire que ne dañuy jël benn thème. ñu toog ak jury bi ñoom ñu toog waxtaan. Mhm. ñu listé des personnalités. Mhm. xool carrément année bi ñan ñu dina plébiscité wu par rapport ak thème bi d' abord ñu ne ah par rapport ak thème bi de sant bi ren professeur Seydi de liggéey na. Mhm. professeur Bousso professeur Souleymane Boub ñoom ñëpp tey jii ñu ne toog toog xool jury bi ne carrément ñii nañu désigné pour ñu jox leen prix bi jury su ne ñii man awma ci ndaw ñoom suñu xasee ba wax ma li li may war a liggéey. kon du yow yaay ku wax ku ñu. non jury bi mooy décider. non moi d'accord mais mais donc par exemple bu ñu nee bu ñu nee euh, si on parle le thème euh, de l'hydraulique wala boog ci li nga xamante ni moom mooy euh, wàllu élevage. Ah. nga jël ñu jël ñu euh, jël koo xamante ni peut-être que jox nañ ko distinction mais moom profil am ça n'a avec li nga xamante ni moom mooy wàllu élevage loolu naka lay demee am lu mu mu def tuut as jël ko wala boog juste que euh, thème bi ngeen ko ci ci ana bi nga jël koo mm-hmm. xamante ni liggéeyam ça n'a ak thème nga xamante moom moom ngeen choisir bien sûr bien sûr parce que dafa am danaa les prix autour du thème. Mm-hmm. il y a les personnalités il y a les awards. Mm-hmm. les personnalités mën nañu sax bañ a bokk ci mm-hmm. thème bi. mais ñoom ñoo ràññeeku ci at bi. jury bi toog toog xool ne carrément ah Barthélémy Dias mi kat su le plan politique. Euh, bokk na ci ren yi nga xamante ne ñëw dina nekk ci kaw. ci wàllum liggéey ci wàllum jury boo xam ne Bart Barthélémy kii la. Dias ñu yëkkati prix bi jox ko ko. ren lu ñu def bu benn benn particularité. quand on voit Aliou Sall. Mhm. maire de la ville de mhm. Guédiawaye mhm. jox prix à Barthélémy médiage c'est-à-dire que ça dépasse na sax cadre politique dépasse na cadre politique cest à que ñun tey jii au delà de la cérémonie des remises de prix joxe ay calabas wala joxe lii dafa am loo xamante ni ñun tamit dañ koy jouer ñun en tant que promoteur mooy stabiliser la euh, la politique sociale stabilité sociale boobu ci ci réew mi dañ koy dox dëgg mhm. euh, ñu ñëw rek ci thème bi comment sortir du chômage ngay ndaw yaa initié calebasse de l'excellence am na aussi groupe boo dirigé euh, voilà. <laughs> ba ñuy def notamment y programme xëyu ndaw ñi. Euh, kaay kaay xëy du moins ma bëggoon nga dellu rek ci sa programme boobu kaay xëy naka la dem waaw kaay xëy bi bi bi bi bi bi amee Covid bi amee. franchement parlant man maa ngi dëkk Pikine Pikine Icotaf euh, dama gis ay ndaw yu bëri dañoo sonn amatuñu xëy amatuñu lenn pourquoi parce que politique de bi ñu war a am c'est pas bokkul ci suñu réalité sociale économique ak culturelle mm-hmm. amu ci tey jii ñun politique bi ñu war a am mooy lan mooy fexe ba tey ji yow fi fi nga dëkk sa biir koñ sa biir commune ñu fexe carrément ba xool yan demande ñoom ñoo nekk foofu ñu jël demande yooyu créer des formations rapide à mhm. jeunes ñu former leen ci mhm. ci ci demande yooyu ñooñu tey jii ñoom ñooy gérer service yi war a xew si commune yëpp bala muy dem di gérer ay communes externes loolu mooy kaay xëy kaay xëy c'est c'est d'abord ñu cibler ah demande yi woo leen ñu ñëw parce que tey jii Sénégal la moo fi ne ñaari secteur moo fi nekk de pauvre ak riche amul secteur boo xamante ji mooy secteur zone tampon xamante ji ñooñu les TPE la les PMI ak les PME. Mm-hmm. ñooñu ñooy war a gérer euh, secteur bi xamante ne mooy la secteur moyenne. Mm-hmm. mais Sénégal secteur moyenne boobu dee na yàlla a les y a les pauvres et tey jii pour ñu mën a gérer emploi pour ñu mën a liggéey ci ci emploi parce que mhm. mais waxtuñu emploi mais xam ne léegi fu ñu jëm mhm. ci entrepreneuriat mhm. il faudrait que ñu pousser jeunesse bi ci auto emploi et tant que état mënul euh, toogul carrément waxtaan avec franchise li nga xam ne tey jii mooy euh, la politique de l' entrepreneuriat dañuy faux. et que politique boobu pour ñu mën a créer des emplois yoo xamante tey jii di c'est des emplois il faudrait que ñu encadrer le secteur informel. Mm-hmm. parce que secteur informel moo téye économie Sénégal. Mm-hmm. te secteur informel boobu ay PMI la PME TPE. et on en train de perdre ça parce que ñi nga xamante ni ñoo jógee ci sous région bi. Mm-hmm. Guinée euh, tout ça ñuy commencé di di di gérer secteur boobu. donc te mooy mm-hmm. mais est ce que vous pensez aussi que loolu dina yomb yëpp pour ngeen euh, doxal boobu projet parce que euh, dañuy damay jàpp ne ñi nga xamante ni ñoom ñu jiitu amuñu esprit entrepreneurial parce que ñoom si vieille méthode bi lañ jaar si lañ leen donc est ce ñi nga xamante ne ay jeunes ngeen xaw am ngeen as tuut wala boog jàng ngeen li nga xamante mooy entrepreneuriat mais ñi nga xamante ñoo ñoo ñu jiite mooy suñu ay président mooy suñu ay ministre ñu ci bëri ci euh, secteur bi nga xamante ni ñoom secteur emploi lañ xam xamuñu woon li nga mooy entrepreneuriat donc convaincre leen ci ñu ñëw jàppale leen ci loolu est-ce que yéen jàpp ngeen ne euh, am ngeen bagage yu mën tax ngeen ñëw ne Macky Sall foog nga investir ci wàllu entrepreneuriat alors que moom ci li xamante ni moom mooy jàng ñëw pour de poste liggéey moom moom la xam. mais on a on a on a investi presque 750 milliards sur les eaux. Mmh. on est en train d'investir la même somme sur l'emploi ana résultat bi. ñëwagul. that's it. on est en train d'investir la même chose sur euh, l'artisanat, sur beaucoup de choses, et on ne voit pas les résultats. Oui, Est-ce qu'on doit changer de méthode Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir ci ban méthode nañu war a dox pour que loolu mën a kii c'est pas c'est mhm. pas on on on n'impose pas à l'État li nga xamante ne tey jii moom nañu war a def. Mhm. sama papa ma nekk chaque année mu organiser le premier forum. Euh, premier emploi mhm. mais au su defee ay bilan dina xam ne carrément lu mu ci war lu mu ci waroon def dëgg comme bilan dëgg dëgg dëgg du ci am parce que parce que réalité yi ñu wax bokkul gis na CV man man man gëwuma CV. Hmm. en toute en toute franchise. moi j'ai fait les États-Unis li ma gëm mooy monsieur Fall mii am na compétence ci lii naa ko naa ko former c'est-à-dire que il faudrait que ñu fexe ñu doon sànni xeer Sylvie. Hmm. ñooñu jànguñu. Hmm. ñooñu xamuñu li xew. ñooñu moo nekk ñi ci mbedd bi xam ne xamuñu carrément ne information bi tey jii amuñu benn formation xamuñu dañoo dañu leen génnee ci société bi mais ñooñu il faudrait que ñu ñu mën leen xëcc jëm seet leen woo leen encadrer leen toog ak ñoom wax ak ñoom. Hmm. jëm leen former man ci par rapport ak le projet kay kay xëy j'ai pas besoin. des gens yoo xam ne am nañ seen CV parce que ñooñu pare nañu ba pare. ñan nga soxla. ñi nga xamante jànguñu. mais ku am CV wam am diplôme te amul liggéeyam. no mais xam nga ñooñu tey jii ñooñu pour pour nga encadrer leen yomb na parce que ñooñu au moins am na am nañu formation mais demal Pikine ginnaaw raay demal Matam demal au fin fond di nga gis ñoo xamante tey ji amuñu formation xamuñu fu ñu xamuñu fu ñu teg seen tànk xamuñu ko sax. Mm. ñooñu yaakaar naa ne jot na ñu encadrer te te kaay xëy bi yéen ñaata ndaw ngeen jot a encadré ba ñu am xëy. ah waaw pour pour l'instant ñu ngi ci phase test parce que bi ñu ko lancé jàggul ñu ngi fas test pour jéem a plateforme mooy dañuy jël ndaw ñi dugal leen ci biir plateforme bi. Mm-hmm. ciblé ay communes. Mm-hmm. dem ci commune yi. Mm-hmm. jéem waxtaan ak ñoom seeti leen euh, seeti leen. après dem nag. carrément ni lii lii ak lii nañu bëgg leen forme mhm. mais là ñu ngi ci jël commune yi mhm. ñu ngi si jël ndaw ñi ci ci ci ci ci euh, ci yi après loolu nag formation moo toll mais fii Sénégal mhm. xam lu lu ñu def dañoo dañuy juum avant ñuy jël di di la jàppale yow dañ lay financer mais ñaata milliards nañu financé depuis ANPEJ ba léegi combien de milliards dañuy ñëw parce Sylvie am na benn projet mu bind yow nga bindal ko benn projet mais li nekk ci xelu Sylvie mooy naa fexe ba xaalis boobu li ma mën ko jot mais c'est mm-hmm. pas de créer des emplois il faudrait que ñu fexe ba inculquer à la jeunesse une politique d'entrepreneuriat une mm-hmm. formation d'abord après formation ñu faciliter la création d'entreprise mm-hmm. soo demee Bénin soo demee dans les pays yi nga xamante ne tey jii ñu ngi ci sous région bi Euh, dañuy dañ pour nga ubbi entreprise c'est facile. Mmh. tu ne payes pas. loolu ça va loolu ça va même les aider pour que les secteurs ñu jóge ci secteur informel ñu ci secteur formel. Mmh. après la création d'entreprise ñu soog leen financer. Mm-hmm. kon yow da nga jàpp ni financement moo war a mujjee. waay. <laughs> d'accord léegi tout à wax nga euh, milliards yu bari yi nga xam ne état bi injecté na ko euh, te mu mel ni rek dafa mujj ci échec. parce que depuis euh, euh, sa euh, Ablaye kii Abdou Diouf Ablaye waad ba ci Macky Sall mu mel ni politique d'emploi échec la fii ci Sénégal yow tey lan nga jàpp ni tey bi ñu ko tegoon peut-être dina amélioré wu bu fi mënul jógee sax chomage non mais xam nga li ma wax rek sànq moo si nekk c'est-à-dire que y a une volonté politique. Mm-hmm. tey le président de la République mi ngi jël xaalis bëri di ko teg ci ci affaire bi ANPEJ bi ngi nekk fii mi ngi liggéey liggéey bu am solo 3FPT mm-hmm. tamit liggéeyam ñëpp gis nañ ko mi ngi fexe ñi ngi facilité formation bi am na tey ji la promise xam ne tey ji ñoo ñëpp ñi ngi ñi ngi joué rôle bu am solo mais lii woote woon mooy tant que tey ji ñun ñëwuñu ci le développement la mm-hmm. création d'entreprise euh, le chômage euh, la base Sylvie elle est ascendante ci suuf lay jóge wàcc yéeg yéeg yéeg ci kaw tant que ñëwuñu ci créé ñu des entreprises communautaires dans les communes d'abord mm-hmm. fexe ñu fexe ba ba ba base bi nekk ci commune yi ci local bi je pense que ça va être difficile mm-hmm. parce que dañuy jël ay dañuy jël ay décisions ci kaw pour ñu wàccee ko suuf du am le cordon ombilical du am link bi je pense que loolu noonu euh, nañu war a nañu war nañu war a nañu war seetaat war ko war ci liggéey bu baax. Mhm. mais gisoo ni itam jeunes yi léegi ñi ngi entreprendre. ah oui la preuve boo xoolee ñëpp léegi dañuy débrouiller wu ñii ñu ngi yar ay ginaar ñii ñu ngi jaay entreprendre ñi ñi di entreprendre léegi dafa mel ni bëri na mais problème financement moom moo am. waaw nga foog ne tendance bi inversé wu. mais problème financement xam nga xam nga xam nga xam nga sa financement chaque fois day am financement chaque fois day am mais li may woote war mooy Macky Sall ban jeunesse la c'est la question que ñu war a posé wu. Ablaye Wade il a hérité d'une jeunesse que ce soit Ablaye Wade que ce soit euh, Abdou Diouf que ce soit Macky Sall ñoom ñëpp xam nañu ba mais Macky Sall dafa hérité une jeunesse entreprenante boo xam ne toogul xaar. Mhm. day dem jël lim moom. état jeunesse bi xaar ñu état tey soo xoolee cek cek cek yi nga gis gars yi nga gis tu vois ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi mhm. jéem ñooñu nag. ku leen poussé tuuti. dañuy dem dañuy dem. Mm-hmm. léegi nag il faut ñu faciliter loolu faciliter loolu boobu c'est quoi euh, euh, financement warul am une coloration politique. benn financement wu que ce soit que DER que soit ñoom ñëpp war ñu ne carrément Pape Amadou Mbodj APR la bokk am na cinq personnes yu nekk sama ginnaaw na nañ leen jox ay financement non il faudrait que mu nekk su des base claires yoo xamante ji ci développement la financement pour ñu mën ci dem waru am une coloration politique et ça aussi day andi benn blocage et temps yëpp ñu ngi doon attaqué Pape Amadou Sarr di ko gars di ko attaqué waa waa di ko kii parce que lu ñu bëgg mu def mooy mu yëkkati ay financement di ko jox ay ay ay seen nit mm-hmm. alors ko loolu nekkul ci base yi nga xamante ji moom tax lépp président Macky Sall teg ko foofu. effectivement waaw donc voilà man damay ñëw si seen euh, ci projet bi nga xam moom ngeen bëgg a teg muy kaay xëy donc euh, yéen fa ngeen ko bëgg a euh, kii. ah Pikine nag Pikine gi ba Pikine. ah Pikine laa dëkk waaw léegi ma ñëw ma ñëw ma ñëw Pikine ak Guédiawaye. <laughs> waaw si foofu nga xam nga bëgg a la parce que. fu nekk fa nga koy fa nga koy lancer il faut nga xam euh, exigence yi xamante ne moom mooy localité boobu mm-hmm. te bu ñu nee Pikine loo xamante ne mën nañu wax ne entreprise yu fa am yoo xamante ne mën nañ cee mën a euh, lancer wala boog façon projet yoo xamante ne boo ko fa lancer dina dox à part marché poisson à part li nga xamante ne moom mooy euh, Pàcc Lambaye ak loolu yow ci yenn secteur nga jàpp ne booy buñ leen si jàppale dina ci mën dem parce que à part euh, kii comme ni nga waxee euh, géejawaay saret yaa fu saret yaa fa nekk la nga saret Pikine la oto fa am ak yu ni mel ak affaire yooyu da ah, ah. ah, eh, laa dëkk Pikine laa te loolu laa Pikine laa dëkk maa dëkk caara caara yi caara caara yi maa ngi dëkk Ivotaaf ok mi ngi kon boog ñu jege woon nañ kon xam nañ xam nañ nekk Pikine à part liggéey liggéey boo xamante ne moom mooy kii à part à part di di di def euh, jaay kafe yooyu non non non mais Pikine dafa nekk ci économie newul ci benn réew <laughs> waaw waaw waaw Pikine moom kii na trop Chine hmm. lu tax ñu am doole c'est par de démographie hmm. ñun Pikine on a un million et quelques d'habitants hmm. un million et quelques d'habitants fu ñu ubbi banque rek banque une banque communautaire une banque départementale c'est fini pourquoi pas Pikine warul mën a créer une banque départementale teg ko fa ubbi ko biir Pikine. Hmm, mais Pikine lu fa mën def. ndaw yi la non marché syndicat. Hmm. marché la. Mhm. par rapport ak transformation fruits et légumes bi loolu rek. la fa mën a nekk ci xaalis kenn mënu ko ki li fa nekk mën a créer ci emploi kenn mënu ko hmm. transformation boobu dina am biomasse courant xam ne day jóge ci transformation boobu lu mu mën a alimenter. kenn mënu ko wax y a beaucoup de formation yoo xam ne mën nañ ko fa teg. mais est-ce que est-ce que dox nga ci parce que. non booy bëri booy bëri xamuñu ko. parce que man mhm. mais est xam nga ni zone Pikine mooy zone boo xamante ne moo ëpp entreprise. il suffit juste. Mhm. que ñu dem seeti entre dem seeti les grandes entreprises xam ne naar li libanais yi ñoo ko moom ñëpp. ñu seeti leen ne leen dama bëgg chaque commune. Mhm. nga jël fa dix personnes à quinze personnes. mais loolu si tu as tu as tu as créé beaucoup te yéen ci dox. xam nga lépp mun mënuñ ko dox à cent parce que hmm. projet kaay xëy bi bi ñu ko bi ñu ko lancé matagul at hmm. c' est juste six mois hmm. en ce moment là suñu première phase mooy ñu fexe ba recueillir ay jeunes après nag pas à pas ñu koy def mais il faut dire que état bi ak société civile bi ak collectivité locale yi ñu ñëpp àndandoo pour ñu mën a mais ban ban doguma la ban domaine la jeunes yi di demander le plus waaw xam nga ñoom su ma ubbee ci projet kaay xëy bi ñu bëri am na ñoo xam ne am na sax seen formation am ñu bëri am nañu formation ñoom fenn fu ñu dugg rek man am na benn jeune bu ma bu ma bind ne ma carrément ma damaa bëgg liggéey man ko ndax am nga formation mun ma waaw ma ne ko pour looy xaar pour dem liggéeyal nit li liggéeyal sa bopp mun ma noo fa nga ubbi fa nga ubbi benn atelier mu ne ma ne ko il faudrait euh, Fall Sylvie ñu simpli ñu affaire yi nañ commencé nàkk nànk tey jii da ngay gis benn ndaw ah mais euh, monsieur Mbagnick Diop ubbi na benn rajo dama war a ubbi benn rajo xamu xamoo alors que balaa nga ubbi rajo mun nga ubbi benn chaîne YouTube. Mm-hmm. def nànk-nànk pas à pas. Mm-hmm. il faudrait que tey jii ñu bañ a brûler les étapes. ndaw ñi ñu woo leen carrément ci euh, kooku noonu dama ko ne carrément su fekkee da nga yor sa cinq francs jëlal loolu nga xam loo ciy def carrément nga ubbi sa sa nga ubbi sa pop yëf nga xam ne yaa ko moom et c'est ça notre politique c'est d'inciter la jeunesse pour que ñu dem ci auto emploi mhm. ñu jéemal seen bopp d'abord léegi ci loolu nag na leen di appuyer am ngeen entreprise ñun non ñu fexee ba ñu dem ubbi leen entreprise jox leen ñu xam ne carrément la ils sont formels am nañu ay papier on avec le projet Kaay Xëy on veut faire renaître l'espoir mhm. Mhm. ndax da ngeen di liggéey ak mairie yi waaw loolu nañ bëgg parce que tamit xam nga foofu tamit dafa am benn problème. Mm. moi j'ai le petit-fils d'un ancien maire ancien maire Kabirou Mbodj. ki mm. nekkoon maire de Pikine. Mm. man par exemple li sama problème mooy ak maire yi su ma jugee ne carrément day may seeti li njëkk a gis et c'est grave c'est politique daa bëgg jël maire bi daa bëgg politique alors que c'est pas ça le but le but c'est quoi le but que mooy nañu fexe ba jeunesse bi am ndam. donc ñu ngi ñu ngi jéem nag pour andi ay collaboration avec les maires yi nga xamante ji ils ont épousé le projet après ñu ànd ak ñoom. mais est ce que dox est ce que dox nga ci dem seeta ji. bien sûr parce que chaque année ki nga xamante ni moom mooy mairie ville Pikine dina maye ay formation yu dul jeex. donc mais formation ne formation standard euh, yooyu nit ñi euh, c' est projet kaay xëy bi nii ak nii laa bëgg ñu ñu moom mu xool ndaka la jéem a impliqué ci biir euh, formation yi nga xam ne ñu ngi xam nga sànq la c' est à dire que formation basique yooyu c' dire que informatique. gestion affaire yooyu bokkul ci ñu réalité économique sociale Sylvie xam si c'est quoi le problème du Sénégal mhm. da ngay dem au niveau de l'ASEPEX pour le gombo y a deux cent cinquante mille tonnes yi nga xamante ji moom la Union européenne di laaj Sénégal moom def def sax Sylvie dix mille tonnes gombo dama nga dagg terre bi dagg dagg tool yi jël jeunesse bi ne leen dem leen ngeen bàyyi su ne parce que jeunesse bi naan noonu la moo nekk ci bay nga fexe ba jeunesse bi ñu am ñu ñu nekk des fonctionnaires de l'État loolu moo leen di motiver man de fonctionnaire laa léegi. Mm-hmm. am naa privilège yëpp. ñu fexe ba carrément ñun état benn mbir rek leen di wax fexe leen ba ngeen ba bàyyil ma cent mille ñu exporté ko mais on a perdu cette concurrence sous-régionale on a perdu tey jii Sénégal ci lan lay namoo ci diplomatie suñu suñu suñu deful nànk. laa Guinée Côte d'Ivoire Ghana dañuy raw tey jii la ma waroo nekk ah Côte d'Ivoire de dafa day day exporté cent mille tonnes mën naa fexe ba déwén ma la ma exporté deux cent mille jël ay jeunes boole leen ci mbir bi ne leen acca foofu nag ci loolu nañu war a dem ci ci ci loolu laa bëgg ci loolu nañu bëgg doxal looloo dana mën a indi looloo mën a dana créer di milliers d'emplois ça c'est seulement sur le plan agriculture. Hmm. mais Sylvie sur le plan environnemental. sur le plan sanitaire lu mu mën a créer ci emploi Macky Sall il a dit cinq cent mille emplois mais on peut créer deux millions habitants deux millions emplois donc je pense que c'est même sur ces bases là mm-hmm. nañ war a dem mais il faudrait il une volonté politique parce que quand l'État sort des milliards pour ça il y a une réelle volonté politique mais je pense qu'il y a un problème de profil et c'est c'est qu'on doit essayer de réfléchir mm-hmm. balaa ñuy ñëw ci sa projet yi looy wax tey bi nga xam ne jàng na ba am master wala doctorat di xeeb liggéey. a ah, kooku kooku li ma koy wax mooy bu mu xepp bu mu xeeb na na dem jël liggéeyam na dem xool li moom na dem na dem bu mu xepp parce que soo jàngee ba ba nekk ba ba liggéey ba dugg yow daal benn affaire laa ak foo mënti ne fexeel ba dugg rek. Hmm. mais tamit ñu dañuy fàtte benn mbir dañuy fàtte ne ñu ngi daw ñu ngi jéem ñu ngi def mais yàlla. yàlla dañ koy fàtte ci mbir bi. Hmm. alors ko yàlla war ñu ko fàtte. ci ci ci ci ci affaire yi. bu kenn xeeb benn liggéey li nga war a def def ko yàlla mooy mottali. mais mais bu kenn xeeb benn liggéey bu benn jeune ñëwee ne euh, gis projet kaay xëy mu ñëw présenté la benn CV ne c'est euh, koo xamante ne maîtrisard la en vente wala nga ne ko euh, naa projet fi nga xam ne mooy marché syndicat est-ce que kooku du gis ko tuutal wala wala boog dañ nga ne ko yow lii nga am comme ci ci marché bi wala nga def lii ak lii est-ce que est-ce que dina mu ngi seet ne man je dois m'asseoir ci benn bureau affaire du genre. on doit décombrer affaire bureau yooyu on a on a on a une solution pour ça. Hmm. xam nga Sénégalais dañoo bëgg bureau. ñu ko bëgg dem toog naa sama ah sama doom. Ah, ah, sama doom sama doom mais kii jàng master loolu lay wax. non mais xam nga oh, on arrête yooyu c'est des yooyu noonu c'est des xamante ne les les vrais américains ñi xam ne ay c'est des c'est des entrepreneurs duñ duñ sax toog seen bureau. bon parce que pour rencontrer ay ay mais. man pour te dire que li may toog sama bureau matul une heure de temps chaque jour maa ngi ci terrain bi chaque jour c'est-à-dire que loolu noonu dañu war a inciter la à la jeunesse. Hmm. nañu bàyyi costume. jàpp nañu bien que maa ngi costume rek liggéeyoo. merci non loolu dañu tardeel ay affaire complexe la Sylvie. qu'on arrête de bureau euh, de de d'assistante de de tout assistante ah d'accord ah, am na solo mais solo ma sama costume maa ngi sama biir bureau maa ngi toog awma oto. il faut qu'on arrête ci tour glace yi ça c'est des détails am lu dina am solo mooy ñu fexe ñoom ba ba ba ba am activité bi ñuy def. Mhm. activité bi nag nga am bureau ak nga ñàkk am bi bureau yow fexee ba def ko ci looloo am solo. Mhm. yéen a ngi waajal événement. waaw gis naa gis naa ne am na li ngeen di waajal. mais ak mais si bu garaaw nga de. lu rëy la de moo tax xaw ma lan la waaye lu rëy la. lan la ah. ah am na ah, daal man bu bu bu ma doon gis temps yii mais xaw ma ndax fu mu mujj. ba ma gisoon ci sama benn euh, naataango journaliste boo xamante ne bokkoon na ci ñi ñu waroon primé mais xaw ma fa la boobu fa la mujjee nag. ban la. Euh, bon y' avait un certain Dieng boo xamante ne waroon nañu ko euh, primé Pikine je pense que seen kii boobu la. ban la. bon ah yow la ñuy xaar kii ko rek. nga nga ñëwoon ñu ñëwoon ñu ci ak ak ak kii ak kii yee yan projet ngeen di waajal xam naa ni am na li ngeen di waajal. doo <laughs> bëri na. yaay xaar ñëwal nag ci bu ci gën a mag. non bi ci gën a mag mooy calebasse bi ñu koy waajal. bu ci topp. Euh, trophée vert. amee ah, calebasse bi am na ren ba pare. wala wala day amaat. non du non ah non amaat non. c'est pas annuel. c'est annuel mais dañuy waaj la ñuy waajal calebasse bi. bu année prochaine man waxuma la boobu li ngeen di waajal ci at bi boo projet dans cette année. waaw mais c'est les c'est les c'est les c'est les c'est les trophées verts c'est les Green c'est un boobu c'est purement environnemental c'est purement écologique. Mhm. waaw. effectivement écologique wala dafa amaat beneen. Euh, ñëwal ci projet boobu à quoi ça consiste naka lay demee. waaw est-ce ngeen di primer ay nit wala. waaw mais trophée vert c'est c'est c'est c'est un événement purement écologique qui vise à parce que gis nga euh, soo xoolee li xew léegi ci côté ci côté ci côté environnemental euh, bi ñuy bi ñuy def trophée vert c'était en 2014 suñu suñu première édition. Euh, ñu def ko Sorano deuxième édition ñu def ko Sorano troisième euh, ñu dem après COP 24 organiser fa trophée vert euh, bi ñu bi ma ñibbisee laa ubbi groupe 7 environnement média une une radio environnementale qui vise à à, faire la promotion de l'écologie et, et par rapport à la protection de l'environnement mm. euh, projet bi c'est-à-dire que ça gis nga ñun ñun on est la zone ñun on est la génération d'amortissement ñun mun ñu changer mënuñu changer li fi xew il faut beneen type de génération verte loolu nag nañu lancé à travers les enfants ba ñu ngi def ñu ngi waajal benn projet bu ngande boo xamante ne ñu ngi koy liggéeyal ak le maire de Sandiara Euh, monsieur Serigne Gueye Diop le conseiller du président. Mhm. ñu ngi ciy ñu ngi ciy waaj a ñu ngi fay waaj def loo xamante ne euh, ça va changer beaucoup de choses sur le plan environnemental sur le plan écologique et sur beaucoup de choses par rapport à la formation par rapport à beaucoup de choses ñu koy waaj nag. Mhm. Euh, mais su sottee rek incha allah xam naa xarit naa la invité. Mhm. ak invité waa Rewmi FM ñu ñëw. ci couverture affaire boobu incha allah. projet boobu Sandiara rek lay yem wala. fépp lay dem. Pikine Pikine bokk na ci. fépp Sandiara. on va faire toutes les communes. mais mais en projet vert ndax am na looy xalaat Pikine parce que Pikine am na. en euh, direct de Pikine am na ñaari euh, Pikine laa ci boobu Pikine fi nga xamante ne moom mooy euh, technopole. fi nga xamante ne moom mooy Mbaaw. Hmm. am na potentiel yoo xamante ne seen projet vert boobu mën nañu ko faa def. ci mbaaw am na ñuy wax ne ci dex bi am nañ fa mën a mën def ci li nga xamante ne mooy technopole bi ndax xalaat ngeen yéen seen dina créer emploi en même temps ci nga xamante ne moom mooy lu yooyu ma wax mhm. localité yooyu ma wax léegi mhm. mais dina aussi créer benn benn lieu d'épanouissement boo xamante ne nit ñi dinañ fa mën di di dem ndax am ngeen fa ay projet yoo yoo yoo xalaat foofu nga xamante ne moom mooy euh, technopole ak si deexu euh, mbaaw donc on a a on a les pour les communes pour toutes les communes mhm. pour ñu implanter fa loolu tey jii sañ jaara moo ne ok ñu euh, phase test bi foofu la foofu nañ koy teg après su fekkee benn commune accepté loolu ñu dem ànd ci moom. Mm-hmm. liggéey boobu dañ ci ànd ak waa regroupement général des sénégalais du Canada ñoom sont les partenaires techniques ak foofu des partenaires canadiens. Mm-hmm. ñoom dañuy ñëwaale pour ñu mën na def foofu li nga xamante ne jii euh, loolu nag nañ fa war a def mm-hmm. mais on veut dans toutes les commune fexe ba tey jii. commune Sénégal yëpp. toutes les communes. d'accord mm-hmm. incha allah loolu mooy tuuti ci loolu projet boobu lan la. non peut-être dafa dafa dafa pareegul. dafa mm-hmm. mais c'est c'est ah, côté écologie la wala côté environnemental. écologie enver l'écologie c'est écologie c'est c'est l'environnement c'est la protection de l'environnement. c'est la c'est mm-hmm. c'est l'agriculture bio c'est la formation. c'est c'est beaucoup de choses yoo xamante ni ñu ci biir. ci ci mbënd mi nag ndax mu ngi ñu ci defal leen. mënd bi ci mën bi pourtant ñi nga xamante ne seen kër yi day day taa ñu defal leen comme ñu dëkk dëkk Chine vivre dans l'eau ci environnement bi la ko mais xam nga mënd bi c'est-à-dire que Kër Massar zone la boo xamante ne zone nappe bi dafa am ndox ba pare hmm. foofu dañ leen war a jël déloger leen Ah, ça mais nañu defal vivre dans l'eau non mais eh. comme Chine rek eh, non non mais ñun nag waaw loolu loolu franchement parlant waaw loolu boo ko defee ñun fan lañ jëm ñun ñu dëkk Kër Massar ah, Kër Massar nga dëkk mais <laughs> mais non mais yéen ñi dem dëkk foofu Sénégal foofu mën nañu dëkk ailleurs fan la ñuy dëkk non mais il le faut parce que tout ou tard ndox bi leen fekkaat foofu mhm. waaw moo tax ma ne vivre dans l'eau ndox bi ndox bi ndox bi ndox bi da leen fekkaat foofu fekkaat leen foofu mais donc je pense que loolu il faudrait que euh, Sénégal yëpp mën ci mën ci mën ci mën ci liggéey mais mhm. côté Kër Massar la boo xamante ne zone bi inondable la te promoteurs yi leen jaay ay terrain xamoon nañ ko am na benn chaîne boo xamante ñun ñëpp xamoon nañ ne normalement impact environnemental bi waroon nañ ko génnee ba ba ba pare avant ñu leen jaay ay terrain mais ñëw leen jox leen ay terrain jaay leen ay terrain ngeen jël ay million def ko fa franchement parlant loolu ak la te ak boobu moom franchement parlant métti na trop hmm. waaw. <laughs> dañ la waar euh, di fàttali rek euh, les auditeurs qui nous ont pris en cours yéen a ngi déglu seen émission sans filtre tey euh, Pape Amadou Mbodj la ñu dalal moo di initiateur de la calebasse de l' moom lañ fi dalal ñu doon waxtaane rek naka la ndaw ñi di def rek ba génn ci li nga xam ne moo di chômage donte danga am say diplôme wala amuloo ay diplôme bëggoon naa ñu delluwaat ci sa projet kaay xëy bi kaay xëy bi tout yaa ngi ne phase la yaa ngi déjà phase test euh, euh, tey bëggoon naa xam euh, itam bëri na Sénégal ñoo xam ne ndeysaan dinañ jàng am seeni diplôme ñi dinañ am licence ñi dinañ am master ñi dinañ am doctorat euh, dañuy euh, xeeb liggéey wax nañ ko sànq mais nee nga xeeb liggéey kiiwul euh, mais boo xoolee man je me dis que Sénégal liggéey am na fii mais jeunes yi ñoom ñooy xeeb boo xoolee agriculture man xam naa benn jeune boo xam ne sama promotion la il s'appelle Khalifa am na ay diplôme diplôme dans l'agriculture mu ngi dafa dellu seen village di béy mais tey boo xoolee moom nee na la problème kii laa euh, mi ngi au niveau de Podor ci dëkku kii euh, problème bu ma am day bay banaan mais pour am tey ku jógee dakaar ñëw jënd dem foofu noonu au niveau du village jënd foofu banaan voilà euh, problème de commercialisation ma la am un jour sax il m'a sollicité pour ma jéem ko trouver ay kii yéen est-ce que doo leen euh, saytu côté yooyu noonu parce que boo demee ba ci village yi liggéey am na mais ndaw ñi du ñu am moyen parce que nee na foofu kilo banaan ñu ngi koy jaaye cent cinquante francs boo ñëwee fii en ville kilo banaan ñu ngi koy jaayee huit cent francs neuf cent francs xam nga <laughs> Khadija il faut dégg ñu même agriculture soo koy def foo ñu liggéey foo ñu xalaat ci transformation bi gis nga banaan boobu la jar kilo cent cinquante su amul benn unité de transformation ci ba ba banaan bi def ay jus de banane tout ça jéem a ñu jéem a mu am parce que a des experts qui sont là xalaat ci loolu il faudrait que tey ji kooku ñu koy féliciter d'abord. Mhm. parce que le fait mu am mu jàng bàyyi lépp delluwaat. Mhm. xam nag xam la say parents ak say mbokk yu ne mi ngi xanaa def mhm. mais bu mu fexee ba ba imposer wu. je pense que tamit euh, il faudrait que mu mu xalaat ci transformation bi xalaat ci parce que ñaar yooyu moo ànd léegi. Mm-hmm. ci ci ci agriculture ak transformation dans dans ci ci ci euh, que ce la banane que ce tous les autres produits. il faut mm-hmm. que ñu réfléchir. réfléchir mhm. sur la transformation parce que loolu mooy tax mhm. euh, ñu mën a écouler seen biir mhm. nga foog ne tey yéen seen projet xay kaay xëy boobu noonu doo leen ko gën a accentuer sur la agriculture parce que même bu dul banaan bi euh, bëri na producteurs yoo xam ne ñoom loolu la ñuy jooy dañuy bay ba pare du ñu am ku ñëw jënd parce que peut-être zone bi c' est inaccessible yaa gis voilà euh, tomate bi soble bi pomme de terre bi c' est tout le temps la même chose dañuy bay mais du ñu gis koo xam ne dina ñëw mu jënd ko pour mu ñëw ko commercialiser mais nañu bàyyi européens yu ñu jël di leen jox ay terres ñuy bay di bay la même chose ko nous mais qu'on arrête ça ñoom ñoo ñu ëpp moyen ñooñu pour ñu commercialiser seen yëf dañuy jëf le prix dumping dañu ñëw wàññi seen prix jaay ko mu jeex il faudrait que mu am des champion nationaux mais is ce que ngeen est-ce que est que ngeen gis un homme d'affaires un un homme d'affaires bu ubbi. euh, dans les autres pays si un homme d'affaires sénégalais bu ubbi une banque dans dans dans un autre pays amu fi il faudrait que ñu mën a jël suñu ndaw ñi ñu ñu essayer créer des champions nationaux mm. à travers l'agriculture à travers beaucoup de choses te loolu mooy loolu mooy tax ñu mën a ñu mën a ñu mën a ñu mën a dem mm. pour ñu ñu jël loolu mën ko tëj mooy lan mooy nañu fexe ba prioriser li nga xamee tey ji mooy moom mooy euh, li ndaw yi di bay hmm. fexe ba tey ji balaa ñu jënd feneen ñoom seen mbir nañu njëkk jënd et là il nous faut vraiment euh, benn benn benn benn benn benn boo xamante ni ça va être national c'est-à-dire benn benn politique de patriotisme national. Mhm. yoo xamante tey jii euh, pour ndaw yi la et je pense que ci lool nañu war a réfléchir. mais mais est ce que bu aussi est ce que dina jom pour pour ñu euh, dundal lool parce que dafa mel ne euh, sénégalais aussi pour nga même bu ñu investiroon si si jeunes yi nga leen jàppale mu développer li ci soble bi man moo war a ñëw jënd ñëw laaj la naan ndax soble mbay la wala soble tubaab la est ce que loolu est ce que aussi jotul aussi ñu am benn benn façon liggéey boo xam ne ko def ngir gën a mën a inciter les sénégalais pour ñu ñu consommer localement alimentaire quoi. ñu consommer localement parce que mm-hmm. il faut ñu impo euh, ndax jarul ñu imposer Sénégalais na leen localement ngeen di ngeen di euh, consommer laps time bi. time bi mm-hmm. time bi jeex ngeen soog a mën a jël loo xamante ni ay produits extérieurs la. mais man je pense que ne euh, gis nga ak Covid bi on a raté on a raté une occasion. on a une occasion de de, de d'investir sur la consommation locale. Mm-hmm. on a raté cette occasion là Covid bi waroon nañ ci jàng loo xamante tey jii une une une politique de dépendance locale. Hmm. fexe kay jii tey jii ba ñuy naan fondé ba ñuy topp suñu mbir yi ba ñuy fexe ba ne attends comme que feebar moo am économie amatul ci benn réew nañu fexe ñun li ñu moom hmm. nañ ko fexe ba ba ba ba lool ko loolu nañu loolu nañu raté benn hmm. et que noonu tey jii on peut rectifier le tir de voir on peut de ñu toog ñëpp waxtaan mais en ce moment Sénégal li fi ne bokk ñëpp dem seen xel fii instant bi kenn du tey jii le c'est le souffle qui peut il est temps que nag euh, keroog sëñ Mountakha génn na wax maam euh, sëñ May si man su gën na wax. foog de njëkk ñu dalal affaire yi. ñu toog waxtaan suñu biir mën a réglé suñu réew à travers une politique de développement. Mm. te bàyyi la politique politicienne. ah Khadija kat am na une base politique bu ngande naa ko jox post te Khadija amul benn compétence la mu fay def zéro. soyons sérieux bu fekkee ne carrément ne Karim am na ay compétences te bokkuñu parti politique xooluma Karim Wade ndax parti bi la bokk wala fi la bokk mais am na compétence économique dama ko dem jëlee andi ko foofu nañu suñu mentalité foofu la war a toll. pourquoi pas le président Macky Sall warul liggéey ak le président Ousmane Sonko pourquoi je parle pas ci Ousmane Sonko euh, euh, chef de parti. Mmh. mais Ousmane Sonko. citoyen sénégalais. Hmm. Macky Sall président de la République qui a besoin de Ousmane Sonko voilà qui a besoin de Ousmane Sonko citoyen ne ko kaay ma dama la dénk benn mbir demal nga liggéey loolu suñ ko defee ndaw ñi ñu woo leen ci mbay dem leen mbay fexe ba industrialiser affaire bi fexe ba carrément ba transformation mais demal Casamance la fay yàqu ci màngo hmm. c'est c'est kenn mënu ko pardonner kenn. Hmm, parce que on a on a un problème de stockage on a un mhm. on a un problème de transformation xam ne état bi mën na génne benn mille milliards rek yóbbu ko foofu lañ fay gagné ci économie mais il faut une réelle politique de développement merci beaucoup Amadou euh, heure bi jot na. <laughs> <laughs> heure bi jot na ñu bàyyi la rek nga tàggatoo léegi Babacar ñëw war a journal 16 mais mbir bi daa neex kon mbir bi yéex na ah, ah. Ah, ah merci merci maa leen di sant maa leen di sant gars yi di leen di leen di remercier di remercier toute toute l'équipe di remercier groupe bi yëpp mhm. euh, di leen sant di leen wax ne nañu fonk waajur yi mhm. nañu fonk boobu waajur yi nañu fonk suñu waajur mhm. nañu gëm suñu bopp loolu mooy base bi fonk waajur gëm suñu bopp lu ñu war a def lu ñu war a am am ko ci àdduna di di di di di wax ne euh, encore une fois euh, di féliciter sama ma Manick Diop ci li mu liggéey nii franchement parlant tey jii euh, bépp jeune da ngay da da ngay da ngay sant yàlla ah, soo amee papa ju mel nii am mu nekk royukaay ci Sénégal nekk mm-hmm. royukaay ci Afrique mm-hmm. di leen leen féliciter di leen wax ne carrément liggéey liggéey bi ngeen liggéey rafet na mm-hmm. la et voilà merci euh, di ànd ak di remercier ki nga xamante moom laa àndoon Yacine mm-hmm. euh, franchement mm-hmm. waaw voilà donc ma koy jaajëfal di ko euh, féliciter encore ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey ci xëyu ndaw ñi donc je pense que donc occasion la ñu féliciter ko donc di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ñu ngi seetaan di wax ne daa fi nekk daal nguur gi ñu jàppale jamono ji ndax métti na lool lépp cher na suukar si cher na lépp cher na te suñu poche yi bënn lool donc di la jaajëfal aussi yow aussi merci Pape Amadou Mbodj initiateur de la calebasse de l' excellence man dama leen di wax rek que la jeunesse soit beaucoup plus représentative ci seen activité te kay te kaay xëy bi bëgg naa ci gis bëgg naa ci gis agriculture bi parce que mënuñu développer sans l' agriculture euh, moo ñu si mën a génnee ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax sa teewaay di gërëm Adama mi nekkoon ci cabine technique bi euh, di gërëm mbooleem mbokk déglukat bu ñu doon bàyyi xel euh, ma leen di jox dig